jàngoro jii di Covid 19 xewul benn yoon ñi nga xamee ni ñoo di taalibe yi jël yoonu dëkk bu sell bi di Touba Mbacké ngir amal seeni màggal fii ay junney junney taalibe la ñu fiy nemmeeku jóge ci bërëb yu fasantikoo ngir amal seeni màggal. Gàmbi laa jóge borom euh, dëkk ba sax dafa tëj frontière waa teewu agsi nañu. ndax Serigne Touba jaral nañu ko. ñëw ndax Serigne Touba jaral nañu. loolu rek moo ñu indi. waaye xam nañ ne coronavirus am na bu wér a wér a wér booy dugg rek ci jumaa ju mag ji ñii di daayira mu xadimatul xidma ñoom wu ñu benn yoon ci xool li nga xamante ni nii moo di digle kër docteur yi. bu baax sax respecté mesures barrières yi takk masque yi di laal gel yi lépp rek pour xeex corona jàppale sëñ bi ndax sëñ Muntaxa loolu la digle. jàngoro ji nag waral ren ji ziyaar yi na mu doon amee demeewu ni loolu yi nag ñenn ci taalibe yi xam nañ ko waral rek ñuy jëfee ndigal yi nga xamee ni kër docteur daal nañ ko joxe. ñu ngi jóge ba kaw Kaolack mais biñ ñëwee bi ñuy départ ñu ngi takk suñu masque biñ ñëwee fekk nañ fii tamit ñi euh, ñu fi fekk si si dëkk bu tedd bi ñu ngi takk seeni masque moo tax dañoo ñu nit bi ñu ñëwee di ziyaare dañoo takk suñu masque. lii ñuy dippee takkal sa masque ngir roy sëriñ bi ak itam woote bi nga xamee ni cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides woote woon na ko loolee daal mu mel ni jur na njëriñam gannaaw ba nga xamee ni fii ci diwaanu Touba ci jamonoy màggal gile koo ci gis mu ngi takk maskam di dox. Touba moom macha allah respecté nañ ma yi masque yi ñëpp a koy takk foo tourné yaa ngi gis ay masque soo amul masque sax di nga gis ku ne la am ma may la masque moom macha dont amaguñu li war ngir amal xayma bi waaye ñenn ñi fësal nit ñi màggal Tuuba daal saay bu jotee li fi teew ci doomu aadama ëpp na sax xew-xew wala itam ab ndaje fii ci diwaanu Afrique de l'Ouest